yow man keneen keneen keneen keneen mi ngi wax ak li la si na amilo soa bi jaala koo xam da ngaa def ñaawteef wu mën a doon ci kaw suuf naan nga sàngara ay yooni yooni yooni yooni yoon dox nga yamba ay yoni yoni yoni yon walay limi muy ñaaw ñaw ndialo nga ci nga dekk sax tax ay yoni yoni yoni yon wala sax ñom ñoñu nga dem ba bëgg ci génn tuubal yalla parce que li nga don def xamoo won yan sanction la la ci yalla na def ëlëk xam nga am na xam fi mu juddoo da mag rek continuer papa mama la xamoo baay ak yaay sardin nga la yaroo yaroo woo daara yaroo ci souffrance ñu lay fayal lu bari nga ni ñu xëy fopp yóbbu la ci yeneen école yoo xam ni sa pap am na ko maanaam sa sa train de vie lépp ak tubaabe la ak nasaraane la xamoo xamoo sax maanaam diine nga xam daawoo ko foo foowee ngay dem ba benn borom suñu borom mi ne bëgg a dimbali tàbbal toquleer ci sa xol bi nga commencé sentir yàlla defal sa biographie li nga romb lépp dara baaxu ci nga dem ba yàgg nga nagaa bëgg a yàlla nee na moom lay waxaat ni lesi naa amilo soo a ki nga xam ne jëf ko te rek la mu sa doon waaye li mu ko doon jëf lépp bi jaxala nekkul maa ko tey déedéet ci laa judd ci laa yaru la la wax am na koo xam ne da ci judd ci kër goo xam ne gëmuñu yàlla tey koo xam ne juddowul ci biir biir biir musulman papam du jullit yaayam du jullit maam du jullit bàyyam du jullit nga continuer ca màgg ca dem maa ngi siyaar sama mbokk mi toog te di ko soññi ci ci faatiye bi atum yàlla ma ni ko jàngaloo faatiye jàpp leen ci may <laughs> jàpp leen ci waay bis bu ne benn baat rek neew naa ko bis bu ne benn baat hmm? soxla naa ko lool ci moom dañ contrôler ma ko ndax ba tey man naa jàppam déet te contrôle ko ndax mën naa sangu su ma nee jàpp mën a mën a sangu rek su ma amee faatiyaa ko saa baax na yéen waa daara ji jéem def leen ci lu ne teewet nga nangu ko wax naa la ko tous ma wax la ko ci buntu jàkka ji jàpp leen ci boole naa la kii muy sa xarit na nga xaritoog moom dégg chaque jour de ko seet ni nga ni nga farloo ci café di maa ngi lay gis maa ngi lay gërëm mburu mi lekk yi naan yi waaye dafa am leneen loo xam dafa cee bokk muy diine te bëgg nga ko ba tuub dugg ci lislaam jàmbaar nga ah te te fi ne fi ne ma ma sër nga dégg maa ngi leen boole yéen ñaar ngeen xaritoo yi ak saa yi dégg nga saa yoo nga dem nuyu ko boo dee mun na neel alhamdu rek nga jàpp ko te dem ñibbi. fi hmm. maanaam sàppe ci fexe ba di fa jiitu tuyaaba ji ci am léegi sàpp si jëkk moom dafa am ñu ko yeyoo walla ku mën a dugg rek baax na bu fekkoon ñépp am xam-xam amul ku ko yeyoo bu fekkee ñi fi taxaw ñépp ñoo yem ku ñëw mën nga caa taxaw waaye looy wax ba mel ni man nga xam yow bu imaam gàggee ci a daal daalin mënoo ni amin yow jàngoo fàttee jàngoo falaxe jàngoo naas li gën a suufe xamoo julli waaw moom laa la ginnaaw xamoo ko fii maanaam fii imam bi taxaw ñetti ñii fi ne fu ci imam gage ñii kenn war na ko ci mën a gàggante waxuma gag mais su belee siir ñëwee nag te yàlla moo xam jaamam imam rokkoo na jugut Seydina Omar biñ koy empoignardé su fekkoon gaa yi topp ci moom mënuñu dara fu ñu jëm hmm? seen Aliou bi ko gaa yi dóor paaka su fekkoon ñi topp ci ginnaaw mënuñu dara fu ñu jëm parce que julli gi warut a dagg ñu jam paaka Omar warut a tax julli gi dagg ñu que yàlla lañ amal contrat. allahu akbar alhamdulilahi rabbil alamin benn waay na roseet paaka surtout gan gu waxul fu mu bàyyi koo rek sëñ Jaase nga teg ko ci ginnaaw ilimaan <laughs> loolu beneen affaire la waxuma sax fi ne ña gàggante xam-xam de nga xam ne ilimaan bu gàggee maanaam waa jooju da nga xam fu mu bàyyi ko lu ko tax jóg defuñu ko fi génn kilifa gu mag ci suñu dëkk doomi sëñ Tuubaa bu mu gaa yi topp ci moom tafarlu fu ñu jëm dañoo ne ci micro yi moo tax waaye doomu Sëñ Tuubaa waaw waa kay waa kay moom laa lay wax ci biir jumaa ja fi ne fi ne fii kun xamul wuru fee taxaw boo demee màkkatul ma kam gisoo ko imaam bi gaa yi dañ koy policiers yi dañ koy dañ koy garde déedéet gendarme yi duñ julli ñoom garde imam buy ñëw buy dell buy julli boo leen fa bàyyi parce que kooku boo ko amee rek li nga bëgg ci lislaam am nga ko bu suba ak jàmm surnoo yëpp moom la ñuy tiitare nañ ma baal ñi ñi ma nekkoon ci thème bi dafa am fu ñu dugg moo tax mag màkk gis nga ko dafa am ñu koy topp bu ne allahu akbar kii day taxaw ci kanamam xam nañ koy bañ mais dafay taxaw di gestu nii ak gestu nii ba xam ba kere imam bi sëlmal parce que saay-saay yi fi ne kooku benn kooku moo moo leen gënal gaañ junni gaañ kii moo leen ko gënal maanaam doonte sax kenn di la mooy mooy nan ni rek rey nañ seen moom am na xam ne maanaam saay-saay yi ñi def lii nii nii di ay lesbien rek ay yëf maanaam am boppu waaju jaral leen lu ne moo tax lislaam dafa santaane nu protéger ko ñoom dañoo xam gëdd yi njiit ci diine nun ñi noo ko xamul kon waxuma sax gàgganti waaye dañ ko war a aar muy benn ki koy aar kon da ko war a xam da war a xam ni diw mi nii la demee kër gi moom kii di jiite jaral na ko lu ne nga teg ko fii loola ba mu fa amee wax nañu alaaj baaram suñu fàllu moo jàngoon yooyu gaa yi def bi waaj ni bërit ba mu ko koy defee la mu koy def te waaj ëpp tënim la yor de tënim militaire bi mu koy def buñ ko maanaam loolu nekkul woon sax lu waajal waaye bu fekkoon ku mel noonu néew fa fu ñu walla loolu fàtte woo am na màkka ñu Omar am na màkka ñu rey Aliyu Seydina Omar dañ ko jàmpaaka man daal ci sécurité ak ci borom xam-xam du it borom xam-xam bu nekk nag su ne da ngaa mel ne man bàyyi koo jolof rek ñëw ni jabet ci sàppe si maanaam yow sax xam bu mu tax nga ñëw taxaw yow di jaay man sama grand bi daa rek man sëñ Dia sëñ Ndiaye laa tudd <laughs> am na gaa yi ko sañ barki démb bi jógee fii talal siyaar war a julli ci kaw. dama lal lal siyaare gi neen sëñ bi rek benn kilifa ñëw taxaw te tey def mu sa ñëw tey mu sa sax moom kenn xamu ko fi nangam laa sant rek ñu lal siyaare bi ni fekk maa ngi defal gaa yi ci biir pour fi ñuy ndogoo noonu bi ne lal siyaare bi bu sëñ bi ñoom moo defee ne mooy sëñ bi waaye génne ñëw fekk mu taxaw ba jekk yàlla na yàlla defal jàmmi àdduna waaye laaj bu am solo nga wax boo xam ne na ci ñëpp bàyyi xel imaam dañ ko war a sécuriser ba noppi waa kay bu sécuriser bi yàllee ba noppi nag nañ teg fii imaam taala imaam xaadim waxin la nag bu dee feneen it kam doon rek la doon koo xam ne imaam ji bu gàggoon moo gën koo gàggante su yàlla dogaloon ci moom leneen it dañ koy foofu àndale ko nee continue Omar bam mu blessé dañ koo àndale deret ji wal yi ñu julli seen ñeent tisbar daggu ñu ko ñaar dé deret ji bax bax bax bax bax la na julli ba nopi parce que mi ngi tan la coma ñu julli ba do ko jël bobu yi xew xew fop luñ ko takké luñ téyee deret ja lijeenti waji feeniñ ko mun leen bu leen ko ray nañ ma faj su fekkente ni génn naa ci ñim ma def ma seet lim ma def ma fayu su ma ci génn bàyyi naa ko yàlla Omar paaka boobu ko génne àdduna te boobu mooy xalifu amirul mu'minin boobu mu yilif na monde entier jullit yi benn waaye bu doy waar a ko rey Seydina Ali ibn Abi Talib nii lañ ko reyee te nekkoon na xalifa rasulullah alayhi salaatu wasalaam kon kay léegi lislaam am war nañu am expérience ci kilifa moo tax yenn saa nga dem ci koo xam day wax ni nii nuy def seen kilifa yi dar ko nangam nangam mais histoire baa ngi fi kilifa yi am nañ lay def nañ ko kilifa dar ko kilifa dañoo xaar kilifa gu jóg ñu def ko ko dangaa leen fi nga sañ nii taw ci mbedd bi di wér nii mel ni maam mbay muy doxantu fajar bu jot xanaa ne ni maanaam benn xalif général fi sañ na ko am nañu leen di xaar moo tax ci ginnaaw bu ñu waxee ni kilifa sànga bi vigile la def ci buntu këram ma ne mooy parce que bokkut ak man bi <laughs> moo tax nit nit da nga koy nungul li ko yàlla def bu ko natt ci daa jafee gis déedéet lu tax mu jafee gis bu meloon yow rek yomb a gis benn moment da ngay seet nag conséquences yi waaye bul xool rek yomb yi. kon looloo ngi ci biir waaye barab bi moom ku mën a gàgganti ilimaan bi ñuy julli léegi benn sa seetloo seen xarit mi nii loxo bi tig tak ki joxe benn baat mu kon ni léegi nag teg ma fi ma ak Amet Diop ñun ñaar nañ taxaw fii rek bu soo yaay saa ko de wallaay <laughs> bu doon maag Asan mi fi ne <laughs> dina xam ni yoonam nekkul ci saar yu mu dugg sëñ jili kan yàlla na ko yàlla dimbali <laughs> waaw ndeysaan mais waajo waajo doon julli ca xel kom te oto yi mu njëkkante sàkk sàppe si mel ne amet rek sun benn mbokkum pël dama pëli baal <laughs> ah wala joolaa soose di wane ne am na xam-xam allahu akbar fekk timis jot na rek daal dal sóoratu yaasin waaw ne ba mu ne yaasin wala kurkaanil akim gaa iya ci ginnaaw ni yaasin ñu yàkkamti muy jàng yasin gi ñep bako fa mu ni kon nañ jang isa ja te taxawal na <laughs> mo nopi kat mom taxawal na ba jang fati ba iya dugg yasin gaa yi dem mu dagg julli ñew leen ñew leen kon ñëw leen jang jàng isa ja <laughs> waaw jangay waye bëgg jité jaral nako mu ni kon ñew leen jang jàng isa ja moom mënoon a yaasul alxuraan ak kéem ba ginnaaw gaa yi doon yàkkam di doy na borom ko am xam-xam day dagg rek di def ab rakka waaye bëgg a jiite jaral na ko mu dagg julli gi dajale waat gaa yi ni bu leen dem kon ñëw leen ma jàng Issa Dia kooku warut a jiite. ndeysaan sëñ Cheikh Tidiane si almaktum fal yansuril insaan mimma xulixa xulix nee na ñaari mu xàddam yu bàyyi ko teewoon te jubawuñu dem Saalum kenn ka woné ni mom dañ ko mu xàddamal di jaasal ko sëriñ ñu jittal ko ci jakka ja morom ma fekk ko te yëgowunu ñu mu jàngee ba dugg rek fal yan suril insaan mu ni fal yan suru dari do gak fàtte bat bi wa sama'i wa tarikh wa madraka ma tarikh am nañ mu saax in kul nafsin dama alayha xaafis ñu teg topp xaafis xaafis xaafis jurul jaare waaj ko bàgg ni ko fal yan suru comme dañoo meroo woon bëggul waaj gàgganti ko waaw waaye waaye mu bëggul waaj gàgganti ko mu ni tekk taxaw bañ a continuer te ci gannaaw yëg ni li ma ko gàggante tax ma ne ko sama fal yoon suru ji soo jotee te nga cee jàpp suñ seex yàlla yàlla yokk leeram si waaw waaw sama fal yoon suru ji ndax yow amoo ko woon Mohamed borom bi ni waajoo jëf aw ñaawteef ba bëgg tuub sama mbokk bopp boobu noonu ak ku mën a doon ci kaw suuf yaa xam loo doon def ci lu bon loo doon def ci lu bon ba yàgg nga rectifié wu regretté ni damay dellu si ci yàlla ah su ma taaba min baxdihi nga tuub gannaaw jëf yu ñaaw yi nga doon jëf ci kaw suuf ni yàlla maa ngi jéggulu sama moy gi ma doon moy maa ngi jéggulu sama sàngara si maa ngi jéggulu sama nangam dafa wuuteeg nag agressé di nangu alali jàmbur yooyu moom da nga ko war a delloo dafa am mooy yoo xam ne yow spécialement yow la concerné am mooy yoo xam ne da nga ko bokk ak nit am mooy yoo xam ne sa diggante sa borom la dafa jar a xam lépp lu siq ak yàlla ci tooñ ko réglé ko du problème lu siq ak sa bopp réglé ko du problème bu dee yeneen yi nag dafa am yeneen sart yu ca aju donte yàlla dina lay jégal muy bari jàq waaye kii nag naanum sàngara yow yaa xam am tuxum bon yaa xam yu mel noonu ba ci xeetu sax njaaloo yoo xam ni du jabari jàngo bokkut ak beneen bi ci ay ay ay ay jafe ay kii kooku nag su demee ba bëgg a tuub ngir yàlla min ba'dihi wa aslaa na xam ni inna allaha min ba'dihi la xafuru rahim yàlla dina ko baal lu bakkaar bi rëy rëy rëy suñu borom da koy baale tooñ gu la na yow tooñ gu concerne sa diggante sa borom yàlla daf koy baale boo tuubee tam doon dëgg kon porte dana ngeen ko tudd opportunité maanaam ki bëgg tuub am na ko ki bëgg tuub am na port fu mu jaar pour génn ci mbon te jéggalu yàlla yàlla dalay baal loo mos a def lu mu rëy rëy nga ne yàlla duutu ba ko defat wax na ko wayatrukal maxsiyata fi saatiha in kaana mutalabisan biha waaye nag banaa ko léegi ngay wax de amul tëj saison war ko ubbiwaat loolu du tuub wala ma eggale bi te bàyyi amet waaw boobu boobu xam naa ne sama gars yi am na boo xam ne tubalal yàlla mu ne ma eggale bii yàlla ma waxul boobu wayatrukal martiya fi saatiha définitivement yàlla da lay baal nga xam doo ko gestooti doo ci jëmati gis nga nekk gi muy nekk ci sa xol toujours nga di ko imaginer ay man fu ma jëm ay man li ma def tekkiwul ne yàlla baalu la mais loolu loolu loolu ak jaajëre ci dafa baax yow di xalaat sa lu bon day tax nga baax lu bon ki ko def bu mu ko fàtte en tant que yaa ngi koy fàttaliku doo ko defaat waaye tekkiwul ni yàlla baalu la ndegam dëgg la ci yow suñu borom xam nag ki bàyyi te dut ma ko defaat yàlla moo xam ne ni kii moom wax dëgg la suñu borom day effacé waaye ki nga moom daa am jàmm dong moo tax moo tax mu bàyyi mu bàyyi ko maanaam daa am problème rek moo tax mu bàyyi ko waaye suy am jàmm di ca dellu kooku yàlla du ko mës a baal mayor sama entreprise mu dox lol may dóor gauche ak droite lu ne ma dugg ci ba entreprise bi daanu ma dugg ci jàkka def ñaar dàkk ne ko suñu borom dootu ma ko defati mukk moo ma joxatee li ma yoroon suñu borom na a ah, da ngay pourcentage boo ma joxatee li ma yoroon dootu ma ko defaat loolu pourcentage la di di waxoo dëgg yow bu la ko yàlla musalaat nga ni yalla gisuma ngay wax <laughs> du dox Ah, min baxdihi wa aslaha la wax su booba inna allaha inna rabbaka min baxdiha la xafurun rahim kon ku bëgg a tuub ci lu bon loo nekkoon te mu dëggu ci yow baal yàlla da baal ma eggali bii yàlla du la baal defoon naa ko affaire bi yàqu est ce que boo ko defaat na ni mel yàlla du la baal bàyyi rek la wax kon loolu mooy waxtaan wi yàlla na yàlla defal nu jàmm di soo ñëwaat bu baax ci sàppe yi lu weer wi gën a dox muy gën a baax fonk taxawaay bii tey teel a jàpp te ko gis nga ba ci ba ci tàkkusaani fulku bi nitu saa yi rek laa waaye yenn saa yi ngeen romb ma fii di di di di organiser ma yëg ni diw jàpput fii ci tàkkusaan maanaam maanaam da ngay woyof ci mbaar mi te dafa heure boo xam ne mbaar mi day diis dafa am poids yow boo tegee sa poids rek da nga xam yow ci gaa yi wala bokkoo ci billaay maa la ko wax de sama benn mbokk tali ngi fii démb dama koy fekk fi ñuy sarwee ci ci saal bi dama leen ko bëggatuma nga mel nii parce que bi ma ko xoolee rek sentir naa ni mu bëgg mel ni melul nii fi ngi fii ci jataay bi ñoom jaar jaase ñoom ñi ñoom yaaral xafaaya bexee ni xal bi sahiratan sa loxo bu ñu ko téyee rek dañuy yëg diis na am woyof na boo leen nuyoo rek dañ xam pap qu'est-ce qu'il ni fi ni ñi da ngeen di topp nit rek tant ki xamul ci yéen dara lu ngeen koy toppee ko heure yi ngeen di organiser fii yëg naa ñi bari seen raakan kaasan ji ñu nekke jàpp ñu setun ma leen koy ñaan góor ak jigéen ñi heure yi ñuy jàng ful ku mbaar mi préparé leen seen bopp fii leer kese la ak i malaaka bilaay ah ku génnul yaa xam ay wutal nii nga bëgg ko rate bañ ko fekke bañ ful bekke ful ko bi te nit ñi bàyyi koo fu ne loolu sa affaire la mais boo xasee bay dugg ci ñaari bunt yii sellal nanga nga sell maa ngi yéen ñëpp laay wax nag ñàkk a teggin sëñ jaase weesuwut ñuy jàng fulku nga dem ba dugg ca baar ma te yow maanaam bokkoo ci ak fulku bi li muy def ci nit gis nga boo sellee man moom mi yenn saa yi mu yéegal ma yéegal ma wala mu ñan da ngay yéeg waaye gis nga fii ne am na nooy mel zéro zéro zéro centimètre sax doo doo yow doo ci bokk maanaam lu ilimaan lu waa ji yuuxu yuuxu yow doo tàng fenn parce que beaucoup maa leen ko wax nag bu ngeen di fii waxtu wi ñuy jàng ful ku góor góorlu leen ñépp laay wax wàcc jàpp doog a ñëw te is koo xamante ni fii lay jaar rek dàllam di romb sëñ bi nan nan yabe yàlla ba ñàkk teggin noonu man xalaatuma ko gaa yaa ngi ni sama dàll yi fële laa koy wàcc parce que li ma yëg mooy fi ma jëm maanaam ci biir leer leeri suñu borom lay waaxu wàcc sama mbubb ba mu jot topp baat par baat baat bu nu jàng rek naa ko loolu may dund nag laa bëgg ngeen dund ko kon kuy dugg si fii góor jigéen mag ak ndaw maa ngi lay ñaan bul sangoo pétrole dugg ci daay du baax ci yow dégg nga te dama koy sant yëg ci gaa yi bu may dem ci ñam yi hmm? léeg ma ñëw kenn jox ma ni ma barkeelu ba ma joxee doom bi rek ma ko waree yéey dama yow dama yëg yow parewu hmm? waaw dama yëg yow parewu dafa xam ne kenn du ko ñemee waxtaane léegi la rek waaye bu njëkk man ba ma joxee ñam woo xam ne yow pare woo man bu ma koy téyee sama yaram bi day tremble dama yëg laa boobu boobu maa ngi dox xañ na léegi bi ma nelaw bi samay nelaw baree laa laa yëgatul dara ah yàlla xam am na jamono fi nii nii maanaam jigéen bu sellul buy togg ma koy xam waaw boo amee janaba ni booy togg ma koy xam bone nee ba mu toppee xam da ngay masalé rek ni sëñ Cheikh Tidiane waxon ni mom ba ñuy julli corante bi rek moom daa egg waaw nee ribaay ji moom wahin, ko bañ xanaa di julli corante bi rek salaahu salaam bu fi loolu déssé nak ma fi des xam nga waxin wo mu wax waxin la waye boko diglu ngay xam ni su ma doon am lee lee la soxla boko mën tam nak nag bari salatu ala nabi fini ben bi day rafet jël fee benn day jekk hmm? waaye saa yoo ko jiggi koo koo nuyu mu ne saa yi di borom xam-xam la de <laughs> day day jëme feneen bu dee yooyu nag yooyu da ngay bàyyi ba ki seet si te bëgg nga defal ko affaire ñëw nga takk noo yëpp ci kanamam <laughs> waaw waaw waaw waaw <laughs> bu ñee takkal yëpp bu ñee nga tàllal ko ba mu gis ko loolu yàgg moo yang baal naq yang na yàlla na yàlla boole jëgal barkeen bi xersam allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa علينا ya maulana innaka antat tawwab rahim bi jay rasulullah sallallahu alaihi wasallam